Thank you. administration tey comment laa fi ñëw tey jëlal ma ah. kii kii xam nga ko jëlal ma kii laaj ko lu muy def loo fi def yow. mais en tout cas fitness. waaw waaw dugal. dugal ko. commencé ko. léegi lan yow lan lan nga am sakkan bu jeex. Kaaw jëlal ko ko nee dama bëgg am foofu. bii moom wàññeeku. waaw wàññeeku jigéen rek entraînement ak moo koy waaw jigéen la mu bien sûr. ah boo ñëwee entraînement bi fekk naa résultat. mais métti ko. si c'est dur quoi. métti ko. ah lépp. bien sûr. Zane. Ah, ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu fa leen daan nuyoo bu ngeen gisee lii xam ngeen kii ma ndaanaan la champion la ñu koy wax Cobra tey nag ñu fekk su ko fii nga xamante ni mooy Fass Mbao saal euh, maam tali maam Dia ñu fekk su ko fii muy entraîné ku xool nag état de forme bi ah gisuma naaj gisuma nga diw mais dafa mel ni yaa ngi ñàkk ba siit Cobra nuyu naa la. Ousseyn maa ngi lay nuyu. ginnaaw ban sante yàlla julli si yonent bi may ñaanal sama ñaari waajur fi ñu tëdd ak ñi fa tëdd yàlla na leen yàlla xare àjjana fiir daw si ñi tëdd si hôpital yi ak ñi nga xam dañuy sooxaale mettit yàlla na leen yàlla seen bopp ñi nga xam ne caabi da leen féetee ginnaaw yàlla na leen yàlla suturaal suñu borom dellu si leen seen famille ba yàlla teg leen si yoon siraatal mustaqiim Sénégal yàlla na fi yàlla wàccee jàmm di nuyu Baye Zal Ndiir xam ne Pàcc Lambaye la nekk waaw parce que doomu aadama doomu aadama rek mooy mbokkam. ndax Baye Zal daa métti mu uuf ma. saal bi nga ma fekk. suma dërëm dugg fi. aw ma ko moo fay lépp boolema kës sayer mi. na kës bi ñu fekk du dëgg kon kooku maa ngi koy boole suñu borom yal na ko yàlla suutural taxaw ko di nuyu sama entraîneur Baba Diallo moom sama papa la sama lépp la ku baax a ngi noonu waaw di nuyu tamit sama beneen papa Pape Diop yàlla na yàlla fëgg boppam moom bason yàlla na yàlla fëgg boppam yàlla bàyyi ko si njaboot ba mu gunge njaboot ba si kanam a kanam di nuyu ëm ñoom 12 ans Potignan xam nga di nuyu waa salle bi yëpp di nuyu neetu bi ma àndal di nuyu waa Pass Mbao yëpp ak waa Yëmbal ak waa Pikine yëpp di ñaan senegal yàlla na fi yàlla def jàmm ak salaam yàlla boole xool ñu bokk ndey bokk baay. su ma lay wax ka Cobra parce que ñu bëri gëj nañ laa gis. kan mooy Cobra. waaw Cobra de benn booy la bu juddoo yëmbal. juddoo fa yoroo fa màgg fa ba toll ni mu toll. dooree Pikine mbooloo si bëre. takkee fa ngemb. xaw ma benn équipe bu dul Pikine mbooloo. lépp lu ma xam rek fa laa ko xamee. te yàlla def nii tey lii am tey. ba muy neex. Pikine mbooloo doon rek kon bu méttee même ñi même nga xam dañ maa toog dañ ma daan toog fu ndoxu Pikine mbooloo man Cobra ba tey Pikine mbooloo laay wax ndax musoon na neex ndax àdduna moo tëddee noonu dafa am neex am na yi bu neex ñëwee da ngay sant mais xalaatal bis dina ñëw naqar day métti ñu tar si ngay xam ne ñu la bëgg ak ñu la téye te yàlla tax kon métti na am na ñu daan gis sa leen mais loolu mbir àdduna mais ba tey am ñoom ne maa ngi leen di gis su mel ay Babou Diallo Ousmane Ndiaye Mohamed Ndiaye xam nga ñoom Seydou Aw Bougou Touré ñoom Roon ñoom Cheikh Sidaat boo yëmbal yëpp daal ñu ngi sama ginnaaw xam nga waaw man Pikine boo laa dooree daal. ba tey lan mooy lan mooy métti lan mooy metti Koba am benn defet rek commencé tudd metti na bu mu daan neex dama daan gis nit ñi mu métti ci benn defet. waaw benn defet de laa am. boo soog laa bëre yàlla may na ko ndam yàlla na ko ndam ni ji addina noonu la. da ngay daan ñi ñuy daan nga mas ni la ñee ñee daan ba keroog ngay tekki ngem mais balaa tekki ngem di am yal na rafet ba koo si dajal doo sëgg balaa moo am yàlla na yàlla suturaal ñu am doolee poos jënd kër def suñuy waajur def suñuy am di jàmm ak suñuy mbokk yàlla na ko yàlla defal ñun ñëpp metti metti bi man tuddee moo ko metti am ñoom ne noonu lañ koy tuddee mais mais du metti ama naan destin la yàlla lu muy dogal si jàmm daa jiitu suñu juddu loolu mbiri àddina la foog ñu nangu ko te bu amee foog muñ gunge la te mun muñ moom may gunge saalituma benn yoon fompul tuuti mais dama gis nga commencé wax su fewu tuuti rek commencé ñax ak deux ans yi nga toog bëriwoo ba tey nga maintien ko courage boobu lan la dama ñëw avant ma bëri ñëw Demba Diop bëri limousine mënu ma ko yàlla moom may ndam Mhm. combat boobu naka la demee woon. maa ko daan. nu ko daanee. waaw dama ko jàpp sàrri ko gauche droite mu rekil daw song ma dëbb ko sol téye si geeño bi dóor ko lu ko dóor ko tàng bu def kaat at ma sumeeku mu tombé woon nag weeru koor suma entraîneur ne ma ah suma sañoon li doo woor nga bàyyi affaire bi jàll nga fay ko ma ne ko non non man attan naa loolu. mu ne la bul woor nga préparé combat bi ba ba a fay. safurlaa dafa ma woon woor ak 15 jours yi su desee 15 jours nga bàyyi ko non ma ne ko père bàyyil noonu rek yow xam naa sa yéene si man yow yéene ngay waxee. parce que da ngay xalaat ni man dinaa perte kàttan ma ne ko non kàttan yàlla moo ko def si man lu ma dolli de macha allah lu ma dolli day gina a renforcer ma ñëw sumeeku Demba Diop gaa yëpp gis lim si lum toll macha allah indi état bu baax mun ma ñëw indi caas athlète. jeex tàkk. waaw athlète nag xam man lu ma yor lan la def benn 100 mètres wër Demba Diop bi. père Malick père ma père Xaarim Samb ne ah kii de daa athlète kii ma gis moo wax loolu suma waral te ba tey loolu laay doxee loolu moo nekk si man. man athlète laa gëj ñàkk bëre bi du si man. mais dafa dañoo gis nga nga Koba nekkoon ci benn chemin boo xamante ni ay ñoom Forza la doon laaj ñoom Gaga Mbossé ah classe googu mënoo leen am nga dem am Goro Sock Goro Sock daan la parce que bi nga koy jël sax ñàkk pexe mën naa ne moo tax nga ne nga jël ko. waaw voilà ba ma koy jël. waaw parce que moom nga bëggoon. waaw yàlla moo ma tiim. dañoo toog si signature maag limousine ni ni Nicolas moo ko wax mu ne. Cobra ak limousine ku si daan. Forza ak Super Étoile ku daan ñaa ñi si daan laay boole ñaa ñi si daanu ma boole la. yaa ngi may dégg. combat ba jeex Forza daan fee ñu woo wax ma ko may leen pare naa waaw Baba Diagne damaa ma ne ko billaahi pare naa bu doon suba ma dem bëre ji ndax boobu xam naa li ma yor lan la boo nekkee foowoo li ñi gis ñenn ñi duñ la fa gis kenn dox guddi daje ba yow benn heure bi amul ku ko mos a taxaw ñemee taxaw ne Cobra maa gis benn heure bi fii nangam ak nangam amul kon damaa xam sama bopp parce que nit ki buñ la xoolee fenn fi da ngay dimbaliwaale sa bopp tamit di moytu yu bari def li nga xam ne moo war li la war dama nga def ko jël lépp teg ko si loxo yàlla après place après mu dem ba benn instant combat ba yàqu maa ne balance gars yi ma wax góor a sot may leen du ma bëre moom boobu Babou Diallo yëgu ko de ñu dawal dawal dawal affaire yi metti ma ne gaa baa ma jël ko woo père na ma doo bëre moom ma ne ko lu tax mu ne ma déedéet yow sa yoon lamb du foofu moom dëgg la moo ngi def preuve mais ba léegi bokkoo leen bu gën ay jege di ngeen bëre mais du léegi mais moom nag da laa yàgg bëgg yàgg laa sonal ba may jël avance bi nag wala azim jël si naa ko si anam boo xamante ne si Baba Diallo maa ngi koy jégalu ba léegi damay toog di ko rëcc te ni ma ko jël si moom gëtoon ko ne ko dama jëli ko moom dafa tii sax. boobu xaal laa ñëwee ba may ñëw si moom. lan la woon boobu. xaw ma xaal rek laa ñëwee man xaal boobu moo nee si man. non attends nga toog ba mu neex la nga dem nga ne ak bañ gi ko bañ nga jékki-jékki nangu koo dem jëli. Baba Diallo ah Cobra su ma sañoon dóor ma ne ko pay jël avance bi ànd ak ñax nag moom mu mujj mu woo Pane booy bi xameetuma ko de comme dem na ba demee nii kii ma gis xàmmeetu ma ko jox ko avance. la dañ la xabtaloon wala. non mun na bañ a nekk loolu sax xam nga loolu. at mais loo yëg loo xamante ni da nga da nga sentir dem jëli avance goo soog. oubien dem jëli ko man maa jékki rek ne ah avance bi gaa xaaral ma dem si Paala. fee commencé paasoo ba ma ñëwee gisuma Paala baaba laa gis woo ko mun ne ma loolu def ma ne ko avance bi laa soxla mu ne avance ma goo soxla ma ne ko nee la nga bàyyi combat bi toogal nga xaar yow xale nga sa lamb lambi bi da koy téye sa loxo. yàlla fekk mu ngi lay may gudd fan lamb ji da koy téye sa loxo moom père moom wax lii bu ma jëlee avancé nag après jël naa ko tamit mu ànd seeg man. nga wàcc waaj gi wala. wàcc waaj gi si war li ma daan def ma def ko feebar naa si def naa si lu ne. lépp ak sama jom ma ñëw bëri si bëri ful ak faya ma maa boole. la ma wax bi ñu ñëwee combat bi ñu xamoon gisuñu ko combat abi daan sifflé bali tàkk mais ñu gis abi sifflé ngay lewaatoo jëm góos góosoog di la diriger ñëpp jaaxal ñëpp loolu jaaxal leen. waaw mooy li ma la wax takkusaan bu nekk. ak ki yàlla di àndal te tamit ak ki yàlla àndal ndax ku si nekk sa yaram. muy foofu da nga ñëw ba ci biir géew bi am looy xof ci Cobra ci ci Gora Sock. <laughs> sama àdduna xam nga lu muy wax man Cobra leen rek moo may jaaxal ci biir géew ñeme bu ëpp du mu ñeme bi rek moo ndax. du dégg gisuñu loolu. ah mm-hmm. laamu jëlee daal man li ma la mënti wax. yow ñu la doon ñëpp ka xàmme la. jour boobu daa ñëw ne Baba ana Cobra mu ne Cobra waa ngi mu ne déedéet du kii. waaw ñëpp xàmme wuñ la dégg. Baba ne ko ah lu tax mu ne kii dafa furi dafa weex taal instant yi kii nekk fu Cobra Cobra moo daan xam di ñëw. di wax loolu yaa ngi koy dégg. maa ngi koy dégg. lan la la def loolu. def ma dara nag man yàlla ñu ma bind man su ma xasee ba tey avance sama yaram mooy tàng deret bi day tàng su ma jëlee avance sama deret day tàng tàng li am amul du ma sedd ba ñu nga xam dañ may nekkal di ma jege sax xam nañ ko si man damay tàng mun naa saaga ni sax du ma ko tey bu laa ma jege nga ne ma yaa saaga kii dama naa la déedéet du man noonu laa mel. ngeen ngeen ngeen déroulé combat bi di daw ba nga dugg ci digg géew bi ba tey yaa ngi doon yëg Cobra mi ma xamoon yaa ngi yëg sa bopp carrément. man de wallaahi moo azim yëgu ma ni gàllankoor jàpp na mm-hmm. am ñoo xam ne ñoom loolu la ñuy gis dama yëgu ma ko. yóbbu ma ko bëre nan daan na ma jël bu set huit. mais lan moo tax bi ngeen bi abi sifflé combat ni mu daan déwulee combat am déwulee noonu kon ci kaw Gora Sock ak ni Gora Sock ni ñu gisee ni mu la doon laajee di la topp moo ñëw moo dirigé amaana sax amaana ñenn ñi nee nañ moo la duma ba noppi daan la. ah yow loolu nga gis mun na nekk. non nit ñi wax ma man li ma gisee li nit ñi wax laa wax. seetaan nga làmb ji nest bu baax a baax. kon kay yow xam nga li fa du dëgg ji amaana man si li ma jàpp. mun na feebar naa. ñëpp dañoo yaakaar ne da ngay ñëw duma ko parce que ni mu la toppee sono la ba nga aalu jël làmb ji ñëpp yaakaar ne da ñëw duma ko soog jëlee ko. mooy li ma la wax takkusaan bu nekk am na ki yàlla di àndal jour boobu du man. dama koy nangu sante ko ko. léegi góor soog daan la nga ñibbi toog. ma ne bàyyi naa la am <laughs> waaw jooy si stade siisu. gaa yi xëcc ma lu tax loolu. bàyyi ma def si làmb jaral. ndax dafa métti loolu sa topp la sonal la ba pare ñëw duma la daan la loolu jàpp la nga ne bàyyi ma non duma la la parce que yow buñ buñ gisaan buñ gisaan Cobra. mu war a ñëw xeex ñu gis Cobra ñëw xeexul. bërëwul te boppam bañ daan ko. loolu lépp am loo xamante ni nit du la daan pare ngay saltel victoire am loolu ak làmb junj la rek loolu ak làmb ñoo ànd. bëri na daan na ma jël bu set wicc al na ko ndam di jig loolu ak làmb ñoo ànd nag comme boo ko def doomu jàmbur suñu la ko defee nangul. léegi la mënoon mu daan la nga ne bàyyi nga bëri. waaw parce que dama jël loo xamante ne dama ko amoon amee ko si làmb jël lépp jaay ko def ko si combat ndax damaa ne benn instant manqué xaalis amatuma dara Baba Diallo. suñu soog jeexal ci làmb waaw ma dem ba jeexal tàkk yoratuma dara te làmb ji jegegul sax. Baba Diallo soo gisee ma gin ko téye. xanaa xanaa xanaa durée bi dafa yàggoon. yàggul. mais après xam nga rek lambu ndeysaan sarax yi ngi siy def regroupement yeeg lépp sa loxo bu jotu seen di ginnaaw te amoo ñu la taxaw day metti ok Baba ak Baye Zal mi loo ma gilleen tey dañ see sonn def si lu ne mais yàlla nanguwul ñoom ñu xamee ko noonu man man nangu mais bu la daanee foog mu métti la tamit waaw métti mais après ban toogee un mois trois mois dama ne garaaw sport la man sportif laa waruma sax nekk fii mais c'est normal sportif laa ma jóg internet ji takkaaj jaaj yi ba mu gën a dëgër tey laa gën a takk jaaj yi li ma daan def ba doomu aadama gis ma woo ma ne ma dama laa bëgg a jàppale lu ko raw laay def te doomu aadama beneen bu dul doomu aadama boobu dina ñëwaat ñëw taxaw taxaw sama wet jël alalam dugal ko si man. trois ans nga toog année balance ak mbër ni méttee est-ce que Cobra am na bu dul làmb am na ci leneen lu mu jàpp. man carreleur laa. ah carreleur. ok mooy sama métier. ñaa ngi dem di Kaolack ba léegi. mais instant yi joogatuma carreleur ndax mënatuma yëg safo bu dee sol la mënatuma taxaw si karo yi ndax karo bu ma teg bu ma tax bu ma déplacé day toj jote naa si benn madame almadi moo sam patron mu wax mu woo sam patron karo bu ma teg bu ma déplacé mu taxaw mu toj mu woo ñaaw mu ne ko mais ñànkaay <laughs> patron bi ñëw mu ne ko loolu mu ne ko xoolal booy bi karo yi dafa seet ay gere saraam la xoolal booy bi bu mu taxaw day toj kii na arrêté ma si nga bañ a liggéeyee gën kay boobu laa bàyyi <laughs> beneen bi ma demaat fan la almadi la waat safa bi ci ko laa jóge troisième ma daan si garawaay waaw li nga waaw ma ne ah, kon instant yi comme dem naa ba poids woon yoon yoon sax may si ay safo parce que risque la bu war yàlla moo ngi que àdduna ci loolu ak ñi làmb méttee jàppaloo ci dara nga toog trois ans bëriwoo ci mbër mu toll ko baa fi ñu doon dégg ay Garga Mbossé ah dégg fa ay Boy Niang même boo fa yeggul war nga mën a taxaw ci seen ginnaaw fu ñu geesoo ku ci am defet ci yow dëgg la waaw déggoo li ma la ma ne loolu mbiri àddina la mhm. dessin la day am métti métti neex day am métti day am bu méttee da ngay toog muñ gunge la nga muñ def li ngay def yàlla jeexul xam nga la moo gën si doomu aadama am du la dara gisutoo li nga daan gis rek nga ma non man dootuma am sama adduna yàqu na booy bu ndaw lan borom karoo bu ñuul ñàkkul dara defal li nga daan def jël ko si loxo yàlla li nga war a li nga war a def dem def ko jox ñëpp cër ku la mag ku la mat yaay wala ku la mat papa jox ko cëru yaay ak cëru papa ñoom ñëpp nga yamala leen man noonu laay dundee. mais ñu gis ne euh, fii nga dëkk muy Fass Mbao ak Pikine soyantoon maanaam bu saison tijjee da ngay dem chaque jour di jaabante wala da ngay dem Pikine toog foofu fii ngay entraîné. man fii laa musculation yi. fii laa musculation yi mais bu saison bi bee damay jóge yëmbal dem Pikine entraîné. ñibbi si waat ñibbi si mais Baba Diallo si yeneen. yàgg na ma wax dama lay utal ne Pikine nga toog ndax yëmbal dafa sori. ma ne ko man tàmmuma di fanaanaal waaye may ñibbi suñu kër moom yéene la am si man billaahi la si tey bu bu doon moom mooy joxe man téye naa royal bi sama loxo dama am loo tax ma fonk dafa def ay gestes yoo xamante ne dama koy téye doomu aadama parce que fi mu koy defee ak fi may tollu la moom Baba Diallo dama am combat maa ngi baytin bi jege de deux semaines ñu matinaaw la ay cinq heures du matin di génn géej ñuy génn mu ne ma mën na ko père est que tey ngoon gi diñ la ñuy jëm wala damay noppalu mu ne ma noonu damoo diñ saal ngay ñëw da ngay contact yaa ngi dégg ma ne waaw bu fekkee yor naa paas naa ñëw mu ne ma ngay la ma a ko paas mu ne paas nga wax ma ne ko essence dërëm yoratuma ko mu génnee 3000 francs mu ne ah lii dépasse laa ko doon def mais yow teel 2000 man ma yóbbu 1000 francs yi billaahi lazi laa ilaaha mooy li may wax mooy li may wax chaque jour rek gis nga ñii di mbër yi dañoo war ndax li may wax chaque jour que maa ngi koy waxtaan ak Baye Djili coach yi dañuy bàyyi seen lépp ndax mbëri mbëri duñu respecté coach yi wala coach yi sax ñoo leen di jiitu fa ñuy entraîné te amuñ ci fayoor fayuñ leen ci defuñ leen ci dara te dañuy bàyyi seen liggéey bàyyi seen njaboot ñëw di jàppale ay doomu jàmbur. mun naa la mun naa la wax man diir bi may compétir di bëre daan daan yëpp heure mu ma musaan jógee yëmbal quatre heures du matin su ma ñëwee si terrain bi fa laa koy fekk mu toog te ménagère day dem yow gis la jàpp sa ménagère ménagère bi demul si moom ne ko Cobra yow yaa def li tax ménagère bi gis la yaa def lu tax promoteur bi gis la dem sa ménagère bi ne ko Cobra laa bëgg. mais est-ce que jotul tamit ngeen jël seen licence yi jëndal seen coach yi ay tikki ay ay ay ñu yor seen i licence yi ci dagg li nga xamante ni moom la ci ménagère yi di dagg. man Cobra de. waaw xaw ma ñeneen ñi aw ma sama kase demeewul noonu Baba Diallo xam na saabu du fóot boppam. Mhm. saabu du fóot boppam. du ma ne nii ak nii mais moom xam na bis boo gis boo bis boo ko dekkee micro nga wax ko moom dama ko jàppee papa du entraîneur du ménagère si man. sax biñ ko biñ ko woowee di def seen palmarès su écurie bi moo ngi tuutal defet bi sax naan bu waya waya yooyu jëlu falaa falaa yooyu ñu daan ko waa noonu kooku déll bi ñu ko daan du jëlu da da cee dal mun ko déet bul bul tuutal defetu jàmm. yéene la am rek yéene moom maa góor soog ñun ñëpp moo ñu bokk njaboote. moom boo waxee loolu góor soog du ko jàppee dara da jàppee ni waajuram rek. ànd na góor soog bi ma mat papa su ko waxoon fekk man ma daan góor soog du ma ko jàppee daal mu koy jàppee ni sama waajur rek amul problème ñoom suñuy peer la garaaw yéene lan am waaw mais baawa daal moom xam na man xam naa yàlla xam na yàlla na yàlla moo teel yéene daal. ñu jógee ci loolu. ñu déggoon sa kombaa taxaw na. combat bi dafa yàqu wala. waaw Boy Faye seetaan naa ko. baaw jàll dafa sa combat dafa taxaw nga ne Boy fay no dama yaa ma envoyé ma seetaan booy Faye mu wax Baba Diallo ne ma Cobra muñal loo muñ mu jeex waaw non balaa ñu ñëw ci loolu balaa non déet déet foofu fa ñëw balaa ñu ñëw ci loolu combat bi dafa taxawoon nuñ ko négocier woon dox sa diggante ak moom wala nu mu demee nu mu demee kombaa bi taxawul taxawul nan demee jam dalaa woo ah. jam woowu ma ba ñuy dox combat bi woowu kan la woo. man Ndoye moo ma woo. Ndoye ne ma am na combat bu fi nekk de ma ne ko kàll mu ne ma booy fay ma ne ko est seetal keneen ndax kooku man li ma def si làmb bëre ñi ma bëreel moom bëriwut ak ñoom man maa wax lii ndooy man maa koo wax man Cobra. waa mais léegi léegi dafa am loo xamante ne dafa xew waa ñëwal. ma ne ko ñi ma bëreel mu ne ma non c'est-à-dire jël ko gëj nga bëre ma ne ko gëj naa bëre mais dafa fekk adversaire bi jaar ko léegi ñu toog ñu man man moom man sama deret tamit noonu. lan moo la siisuloo chaque jour da dem jëli avance. voilà Babou Diallo yëgul de ma ne ko may moo wax ak père ma woo Ba Babou Diallo na ma yee eh. nga ne lan man ma ne Boy mu ne ma yee eh, li ma la wax bu baax. moom waaw mu ne ma déglu li ma la wax bu baax waxoon nga ma fi góor a sot. waaw te kooku sax amaana sax tane na. nga daan ko nga ñëwaat ne ma kii ma ne mu ne ma looy doyee Boy Faye ak boo ko daanee fa lan la mën a yóbbu si laamu Kota. mu mel lu énervé wu ma ne ko garaaw. ñu bàyyi mu seet. lool loolu ban jour la la ko wax. Ndoye ma nga ban ban jour ma Ndoye woo xam nga daal la ma Ndoye naa ay côté jeudi la ma Ndoye woo jeudi bi dama woo wax ma ko ma si jeudi bi si laa woo Baaw Diallo ma jékki woo Ndoye na ko wool père père woo ma woo père père waan ma dama comprendre ah su ma sañoon doo ko jël. doogal lamb ji day doogo a te ibbeegul balaa moo ibbi di nga am combat si kattanu yàlla moom wax bi yaa ngi dégg ma dem ba benn instant xam nga rek man sama deret bu tàngee ma ne ko peer dama ma jël ko bàyyi ma jël ko bëri ji ndax gëj naa bëri bàyyi ma dem jël ko combattre man boobu léegi maa ngi interné ma jël ko bëri mu noppi waxul dara ma ne ndooy woo ko ne ko moom xam nga moom xam rek benn instant mu ne léegi amul xam naa amul problème bi gënalu ko su la ko Pape Diop yëg Pape Diop woo ko tàgg ne ko Cobra lu tax muy jël booy fay nangam ak nangam ñu woo nag ngeen sous-estimé booy fay non du loolu man. ñoom fi ñu fi ñu teg sama bët si làmb du ñii. ngeen may da ngaa toog trois ans bëree wóor si dara. ah si parce que booy Faye boo xoolee boobaa ak léegi muy compétir. man maay compétir. Boy foo compétir. maa ngi compétir sa àll bi après dama mun blessure ma gëj dem compétir ma toog baaw jàll ma bàyyil àll bi toogal yaa ngi dégg. Mm-hmm. dégg naa ci biir waxam man du ma minimiser benn mbër. nee na day nee na gis nga samp kii rëdd mu tourné nga daan. man du minimiser mbër. yaa ngi may dégg du ma tuutal mbër. moom amaa na xelam foofu la toll ak yaram ni ñu ko yare moo tax mu waxee man ak nii booy fay mosu ñoo daje mu xool ma xool bu àgg. waaw léegi non loolu dinañ ci ñëw parce que jàngat bu yaatu la parce que dafa am lu mu wax te dafiy baax nit mu wax dara nga leeral ndax ñi xamul mais léegi combat bi bi ñu ko doxee proposé la yooyu nga bañ baaba Diallo ne bu ko jël. bañu ma de. Mhm. man mii maa nangu ban demee ba ci biir maa nangu baaw jàll bañ Pape Diop bañ. te samay kilifa lan ma la wax na man du ma weñ sama loxo kilifa benn yoon laa ko mus a def muy sama diggante. te dootul ñaar dootul ñaar. mais suñ ma nangu ba ma waxee nangu ñu nangu amul problème pare naa sax may dem jëli avance bi def da nga bëgg a bëre moo tax nga nangu jël booy man maa bëgg a bëre damaa namu bëre. Cobra taxaw génn yëmbal oto yi dar borom saa yi ko ba arène nationale. taxaw xëppoo gurtu yi dugg njàpp ma loolu laa nam essence yi moo tax ma ne garaawal ma siis ma dama koy jëli. mais man dama samedi waaw waxtaan ak man ñu wax ma wax bu wér. ne ma eh ñi nga bëreel kii bëriwut ak ñoom te moom ba koy njaaxum di daan Issa Diop maa ngi toog boobu maa ngi jógee si malam ñaani mu naan trois ans la toog bëriwul moom mu toog six ans bëriwul naan ma trois ans. six ans la toog bëriwul. ba may daan malam ñaani ma daan malam ñaani dem Issa Diop am lamb fa amoon ba may toog nii sama sama kanam lañ ko daanee njaaxum daan ko. nga bàyyi muy def ma dama ko respecté am na yoo xamante ni waroo toog sama romb naw la di ko maa bëgg ñu leeral ci combat ba doo ko ñëw ci Boy Faye parce que dama man samedi promoteur bi kii di Jamaïcain dafa ne ma comme man la woo en personne na ma combat bi taxaw na taxawal na ma ne ko ban combat la mu ne ma Boy Faye Cobra ko ah loolu neex na mu ma suba laa war a dem defi signature contrat bi mais ci diggante samedi ak dimanche lan moo ci war a mën a yàq làmb ah, li ma la wax man maa nangu bëre ak moom mais avance dugul sama loxo sama accord laa leen jox rek. mais est-ce xaalis parce que dégg naa téyeen xaalis ba ci dimanche bi la ko delloo. téyewul xaalis. woo na ma. si la ma Baba Diallo woo Pape Diop woo ma wax ma lu wér luñ may wax. te sama kii yow yaa xaalis wala ménager moo téyewul xaalis. ma téyewu ma si lan demi bi la waroon dem jëli xaalis. si lan demi bi muy dimanche bi. waaw muy dimanche la waroon dem jëli xaalis. ñee woo ma woo ko wax moom si njëkk ak teraanga. Hmm. asafurlaa Baba woo ma ne ko léegi comme dama demee nii te man góor laa mënu ma wax ak nit ba pare delluwaat di reculer comme yow sama kilifa nga woo ko nga wax moom baa ba moom mu coupé ak baa rek woo ma direct mu naa ma baa ma may woo di ma ay wax ma ne waxtaan ñii samay kilifa lañ ma àgg si làmb ñii seen loxo ngi si tey ma lu bon lu baax rek lan ma na naa bàyyi combat bi te yow jotagoo xaalis. ci lim la wax. si si Baba Diallo li mu ñoom Pape Diop. ma woo Ndoye na ko comme jotagoo xaalis bi bàyyil combat bi mu ne ma non c'est-à-dire nangam ak mu ne ma amul problème bu bàyyi doo fay taxaw naan ay dafa delloo avance bi dafa jot avance delloo na bàyyi yooyu man du ma genre mbër yooyu ma sama carrière ba léegi ay risque rek laay jël tegal samay combat nga seetaan musuma bëree combat bu yomb musuma bëree combat bu yomb man du ma mbër boo xamante ne damay yoor wala ñu may dóor du may sànni ku may gëmm su ma déggee minimiser wala say coach ah ñoom ñoo la ko delloo ah waaye man dinaa xeeb mbër man ki dem ba am sañ-sañ taxaw ne jox leen ma avance am mais dama may kilifa xalu xale jàpp ma ak sama xadaat ma ne ma dem jóg te ma buñ ma buñ si àndoon man noonu laa koy demee bëre ji am ndam ma yaxin boobu laay doxee. booy fay booy fay neen. Ah, waaye ama booy fay tàng laa fi daan. mais da nga toog da nga toog trois booy fay màgg ci diggante bi di compétir ba yëg dooleem yëg boppam jàpp ne war naa mën a bëre ak yow dëgg la booy fay yàlla màggam gi noo yokk man bu xam naa damaa toog tëdd di nelaw xam naa man damaa tëdd di nelaw kon moom mu toog di antenne moom ma tëdd di nelaw ku la gis nii kay xam ne nelawuloo moom non booy fay daal li koy wax am na ko yàlla dafa jaamu na respect si doomu aadama am na wax yoo xamante ne jarul ñu ay Cobra jël na na ko yàlla moo ko tiim sama ménager sax jot na xaalis si dimanche ba la waroon jëli xaalis si guddi ko woo lii am am na yoon nañ ko génnaan na si loolu kese du dara. mais su dul Boy Faye Cobra ñan la war a mën a bëri ñoo xam te adversaire potentiel lañ. samay adversaire pour mu wax la ko. Forza Fass sama adversaire la. Pakal bu Mbour sama adversaire la. Garga Mbossé sama woon combat sama adversaire Tapha Tine sama la. non Tapha moom yeggagul woon nag combat. xam nga dama laaj samay adversaire bëgg a bëreel mais ñi la lamb boole. lamb boole parce que Mbour lamb boole nañu. ama neex lamb boole nañu doomu dangu lamb dañoo boole ñooñu. lamb ju neex nga yàgg doomu dangu. déggoo li ma la wax. yàgg doomu dangu moom doomu dangu lamb ju neex. promoteur ñëw dem si Baba Diallo xam nga Baba Diallo mu koy wax. ana ñoom Fallou Ndiaye. yow ak euh, doomu dangu. làmb ju neex la. làmb daax ko njar la xam la moo tax moom gaynde la damay gis ni muy def ak gars yi day xeex day bëri man damaa bëgg loolu si mbër ay ndaw lan ñoo mun a mayante xaalis na ma jël ñu bëre que le maire gañ ku ne dem xooy leneen day jeex après day rafet ñu bokkaat nday bokkaat baay man ñi ma bëreel daan ma sax ku ma dama lay jox sa wàccuwaay man kenn man du daan sax ma lay jàppal dara sport la sport laa koy jàppee billaahi lazi doomu Dangote bu ma ko amee dinaa jël pakalu mbuur su ma ko amee jël ama neex su ma ko amee damay bëri Moussa Ndoye su ma ko amee damay jël yéena ko déggandoo mbokk yi gis ngeen lii mooy làmb Wassare làmb chaque jour rek ni koy waxee lépp lu ngeen bëgg ci làmb wala lépp lu ngeen namm ci làmb ñu ci loolu la ñuy bëgg di dox ndax keroog bi ñu demee jëli ji ki nga xamante ni mooy booy fay mu wax ci digganteem ak Cobra ñu xëy ca lendemain ba kii di Ibou njaay Obali génn am lu mu wax ñépp topp ñu dem leen jëli Koba dem leen jëli Koba lépp lu ngeen bëgg rek ci lañ fay dox dégg ngeen Koba li mu wax ak Koba li mu jëflante tey ni lañ koy defee kobaa soo amoon kàddu yu mujj loo ñu wax. waaw kàddu mujj bi Sénégal yal na yàlla def jàmm yàlla bokk xol yi boole xool ñu bokk nday bokk baay àdduna lépp teraanga la na dafa may doomu aadama yoo xam ne dafa lu ma leen dara dañ maa bëgg rek te yàlla tax loolu rek solo si bu yàlla booleeg nit si xel ak moom lu rafet ñaaw ñaaw bu jógee buy am bu mu jógee si yow di nuyu neetu poti ñaaw maa ngi bu baax ndax moom borom baax la bokk ñu igiri mais igiri buunu fii la nekk mais fi la antenne ñu ñëpp benn la waaw mu nekk borom baax am yéene douze ans am di nuyu kës bi sayar encore une fois du nuyu waat Baye Zal bu baax a baax di nuyu waat Baye Zal di nuyu Ousmane Ndiaye Yaya Ndiaye Mohamed Mouhamed Ndiaye seet Thioune maa ngi koy nuyu bu wér samay nit lan woon bokkoon si man yàlla yóbbu leen ñu dem tukki gis mel ni Cheikh Thioune Mouhamed Ndiaye Seydou Aw boobu Touré di leen ñaanal yàlla dafa leen jàmm fi nekk ak mboolem ñu fa nekk fekkee dañoo dem pour teral seen waajur rek moo leen tax a jóg yalla leen yàlla suturaal taxawu leen ak mboolem nit immigré gi yàlla def jàmm si réew mi di nuyu sama entraîneur Baba Diallo bu baax di nuyu sama waa Ikiri Ndiaga Diop Ndiaga Thiam doomu Pape Diop di ko nuyu bu wér amagul combat yàlla ko may combat mu am si ndam commando junior xam nga di nuy Xaadim Mbaw Mbàkke di ko nuyu bu wér a wér a wér di nuyu Papine Sandika di nuyu Baye bu wér di nuyu waa yëmbal yëpp Sénégal yàlla ko yàlla def jaamu Wassare Lamb sa kanam dégg ngeen ko Wassare Lamb ci kanam noonu leen def di leen tàggatoo tàggatoo bu du ànd ak tàqalikoo di leen wax ba ëllëg incha allah ak beneen mbër ci Wassare Lamb kàggu jaajëf